Lord, bring your jóg loxo yi placé wu. marqué le pas comme marqué marqué eh, voy a comprar un video. Thank you. sama boroom xaa un xaree suñu bakkañ ak seytaane xaree suñu sang ci sama kanamu boroom samay dara yàlla na yàlla mag yu am ñoom tey ñamale bari na ñoo xam فصلت فصلت أعوذ بالله من daaraam ji xale bu fi jël yàlla na doon xale bu bu ñu ràññee waaw parce que dañoo toll ci jamono joo xam ni xeex bi dafa bari waaw xeex bi dafa bari su ngeen ko gisee ci jamono yi passé am na luñ fi defoon ba mu egg assemblée nationale bu ñu ci jógee am na yeneen carte yoo xam ne ñu ngi jóg di ko joxe pour lan pour jàppale daara yi pour lan. les Européens ñu bañ ñu suñu njaboot te kii ñu gis muy Imam Kayre mi ngi ci waaw Imam Kayre mi ngi ci mi ngi ciy doxal lu mag xam nañ ko parce que fooy ñu dëkk ci fayu foofu lay jàngalee ñu koy ñaanal nag lépp mu ci yàlla ko yàlla defal defal ko njabootam waaw ca kanam rek l'islam ca kaw l'islam ca kanam yàlla jëm yàlla nañ ko fekke ñun ñëpp yàlla la ñu yàlla boole ci soppee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp tey ñaan yàlla boolem jéggal day def euh, oustaz lii da koo sàkku ci ñun ñu wax koo def waaye ñun mënewuñu wax ci mbooloo wala yëkkati ci micro waaye comme da koo rek ñu ne kon dañ ko defal dañ koy tënk tamit ci sëriñ bi ñu yaakaar di wax ne euh, laa tafxalu say an bi xëyri isnin والإذن صرف في قبول صعني كان كندي قال لي انت انا دي سنت دي سنت دي سنت وصاص ده كتا واي كان بينا في عند خالي بار لا يقوم واحد لما يوقع يا قران كل حسب بما لديه فرعون يوم يوم بوك طور الاسلام به نو ما بجي رك دخلنا قران ما نقول نيب ندخلنا قران مو يوم بالقران jangan ko lool yolomal di ñaan yàlla rek di gën a di ci yóbbu seen doom ndax di yenante mu ne kullukum raahin wa kullukum mas'ulun an rahiyatihi daa mat a bàyyi xel yéen nag di wane na ne bokk ngeen la hadis ba di wax kun mustamian muhibban waaye nag wala takun xaamisan fataaru ko yéen a bokk leen ci seen jataay boo nag kan ñu ngi leen ci gën a soññ bu baax ci xam ne njaboot gi leen suñu borom dëkk ëllëg da leen koy laaj leen nañ ko jiwu baax mooy ndey baax wutal ko turu bu baax bu dal jàng nga dalal ko. nga jublu bul gessu bul delu ginaaw bul yuqat bul décourager lépp ci ginaaw alquran dafa am sama benn doom di mu dañu ànd jógi juma mu ne ma papa comme sa grand bu bi la bëgg ma ne ko alquran la koy jox te teg naa li ci yoon wi ma ne ko sama grand bu bi du grand bu français du grand bu place grand bu alquran la ndax wa rafaanaahu makaanan aliyan alquran rek ko am te alquran day xale ku mu fal sax ñu tuumaal la naan li am waroo ko woon a am ndax ku yalwaan war la am loolu waaye alquran la gën koom lépp saay-saay si nga xam ni gëmuñu ko sax buñ jàqee ci alquran la ñuy dellu bu élection jotee sëriñu alquran yi dañuy xat seen daa day jeex bu jeexee nag ñu sànni leen ku ci xamul sa bopp nag yaa xam nit li mu yor daf koy xam yow nag na ni li nga yor xam nga ko ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla boo gis sa bopp yàlla boo naw sa jëf yàlla na nga yegg yàlla na nga yeggaale li nga téye sa loxo te jullit yi li nga leen yéene yàlla nañ ko jariñoo kon Moustapha waroon nañu wax lu ëpp loolu waaye nag dañoo génn tuuti rek comme kuy tëfli ci li suñu dënn waaye liñ la ëmbal ci ngërëm ëmbal la ko ci teraanga ëmbal la ko ci yéene moo ëpp li ñu génn maas mi ngi lay nuyu kii ku ko taxaw rek man nga taxaw ndax ku ma ku ma sidd boppam la jamono yële daf ma tudde bés mu fekk ma tukki bi ma ñëwee may xool lettre bi euh, mu jàll ma ne ah mu sabaade bu doon keneen dina ma sikk ndax man la teg ca kanamu lettre ba waaye moom fu mu teew maa fa teew moom du ma am euh, njàqare mukk ci mbiram tey jii bu ma amoon ngantit dama yëg nii dina ma supporter fii ne ñu nga may xaar kayaar waaye dama ni Pape Ngouda mënuñu maa bañ a dugg ci tànk bu Moustapha gis sama jëmm ndax su ma ko deful dina am lu ko manqué maas ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf tabaarakallah yal na yàlla fay la bala ngaa dem nga ñaanal mbooloo mi tabaarakallah yal na yàlla def tawfiq su ko defee sant la bu baax kon ñëpp tàllal nee dafa ñëw ci tudd Mouhamadul Basir muy xale bee yaayu daara ji uuf bi mu ñëwee gis jotaay bi ni mu mel bi mu ñëwee gis jotaay bi ni mu mel way jur yi jël tur bi bu waroon a tuddee way jur yi jël tur bi ko waroon a tuddee wala cërale ko ñu ko yaay tudd cërale ko ni ko yaay tudd mu ne kan laa koy tuddee mu ni kan laa koy tuddee ñu ne ko sayyiduna Muhammad bi nga tuddee sallallahu alayhi wa sallam mu bég ca loola lool bi ñu tuddee ba noppi ne ñi doon yëkkati ñuy jottali ay kàddu mu ne yal na yàlla teral ko yal na yàlla sàmm ko ne moom mii sadu ñëpp la ne taalibe yëpp am cër ci moom man xam naa loolu dëgg la fa tabaarakallah yal na yàlla fay ko li ma wax sànq rek bëggul kenn rafle ndax koo bañ mu rafle fa tabaarakallah jox ko kër ndax sëriñ Abdoul Aziz Al Amin di kenn ci moom moo daan wax ni genn wàllu capital bu du mooy kër fa tabaarakallah te ñi ko defal bari na yal ku fi ñëw. sëñ xalifa keneen ku fi ñëw te indi fi jàngoro wala mu indi fi aajo wala mu indi fi aajo wala mu indi fi lu ko të wala mu indi fi lu ko të naka yeew naka yeew ci bis bi tey bis bi ndax bis bi ëmm na leer ëmm na leer ne Moustapha yàlla nekk junniy daara yàlla nekk junniy daara ba génn Cees ba génn Cees ba yegg ci sa cosaan ci barke yonent bi لما أخلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق ولا هاديه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم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 يا من أسر الجميل وستر القبيح ولم يعقس بالجرير ولم يهيك ستر ويا عاصم العافية عاصم المن يا مقل العصرات ويا مبتدا بنعم قبل اشتقاقها يا رب ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رغبتي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 يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu bokk jullit yi di nuyu lislaam di leen taragal di leen teeru di leen dalal di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci kaw suuf nga xamante ni ci malam nañam la ñu mokkale abdalu ma yutla wa ma yuqaalu wa xayru ma yuntaxu fihi lma قراءة القرآن عند الناس برواية وجيه tey jii nag loolu moo tax bi nga xamante ni seen bit bii ñëw na du ma ni bitam ñëw na ndax seen bit la amuñu lenn والله بما 위험 moom la waaji defoon ndaxte yaakaar naa su ma waxee dana xam ne lii daan nañ ko wax oustaz seetlu naa ne bu jàngale waan ba mu yàgg day tëj téere bi daal di jël loxo yi ràbbulante ko mu ne yéen ñii toog ku ma ci yàlla mënoon ku ma ci yàlla xamaloon ma xam ñi nga xam ne suñ fi bàyyeekoo duñ sampu daara ma sempi leen dem bu dee benn buy sampu daara sax moo ma gënal loolu moo tax ko yaa ngi ci tool bi te jàpp naa ne incha nooy gën di continuer da ngay gën di am réussir gisagoo dara loolu man moom laa jàpp te jàpp naa ne incha allah yàlla bi def lu wuteeg loolu kon sant bu baax a baax way jur ñu leen di ndokkeel di ndokkeel ñëpp daal ci bépp gàttal ndax bëgguma weesu benn minute te su ko weesoo rek danaa xaabaabal sëñ Moussa jërëjëf yal na yàlla قرآن إن شاء الله واللي بارك بيكم أزلا اللهم صل على محمد وسلم تؤمن والقمت <laughs> wallahi alazim ànd na ñoom moom ku dégg bëccëg ñoo bokkoon suñ doon fanaan ñoo bokkoon ñun doon def lépp moo tax seede yii ñuy seede ci moom na ngeen ko déglu bu baax te ci koñ moo raw fuuf lamp bii leeraaya moo tax mboolem ku ci doon jàpp ci daara ci jëmmam ci xalaat référence ci côté yépp yokku ko kon Cheikh Moustapha ni mu lay doolee ndokkeel lii Abdallah yi wax ni lii tàmbali la moom lañ gëm ndax alquran kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun dafa barke te nag kon yàlla daf ni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ñun yàlla ñoo wax ci alquran te ñun ñoo koy wëttu ñun ñoo koy gàtte ñenn ci borom xam-xam yi yegg ci ni yàlla ni muy gàtte alquran noonu lay gàtte ku koy jàngal waa daa ko xal maa ngi bugg a xaabaabal kan? waaye sang bi yàlla ni gàtte alquran ba kenn mën benn baat kenn mën ko cee yokku kenn mën ko cee wàññi yàlla yàlla gàtte la loolu wa jaal na samaa maxfuusa yàlla nee na asamaan si maa ko gar ni yàlla garde asamaan soosu ba benn jaam man caa yegg ba tey soppi dara sang bi yàlla yàlla garde ko loolu ba kenn du mën a soppi ci moom dara kanamu borom xam-xam yi toog ci jéggi bu baax a baax daa nekk kàddu ndigal rek moo tax ñu jël ko waaye amaana duñ ko fi ndax mu yaakaar na yàlla dogal na muy suñu mag nekk suñu magu daara wax ndax sa bàyyi la woon ak sa maam yi nekk Dakar moom mu nekk bis bi jot wax dëgg yàlla ñu am yéen fekk waaye cofeel bi mu ci ñun ak fonkel bi mu am ci ñun depuis ci quatre heures léegi ñu ngi naan ko ñoo bëgg a dellu mën nañu ma ci yéen ma ne ko ah amuñu pexe comme mooy kilifa gi bu ñu téyee nañu toog incha allah xëy na bu ñu liggéey bu ñu ñaanale yàlla dina ko toog feex yoon bi dëgg moo koy am ndax nit ñi kenn moomu leen nit ñi ku leen